jërë ngeen jëf yéen sunu mbokku internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek ku nekk sa wàccuwaay amaat li di kontaan mbeg mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su ak kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dalal naa la rek damay fas yéene ñu waxtaan ci xam-xam ci bu baax a baax tey ma dalalaat beneen kilifa di kàngam xam naa nag namoon ngeen ko waaye lëlu bi gëj génn bi bokk na ci xam bi nga xam ne saa su nekk da koy renforcer ngir client di ci jëlee lii di tawféex kooku may mooy Cheikh Baye seetu askan bi tey nag dinañ waxtaan ci ponk yu bëree bëri waaye ci xam-xam xam rek lañ koy tënk xew-xew jamono di actualité na ngeen ci xaar lu nekk tey rek ngeen di dégg ay révélation jëmmale ko ci kujje lànk politique bi Cheikh bi damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. julli ci yonent bi sallallahu àddina bi yëpp partout dans le man alhamdulilah nit laa koo xam ne nitu àddina laa damaa tasaaroo ci àddina bi yëpp maa ngi nuyu sama taalibe fu ñu mën a nekk ñu nekk ba Suisse ñu nekk ba Amérique ñu nekk ba Allemagne Angleterre ba Arabie sawdi foo xalaat ci àddina bi naa fa taalibe maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara waaye di jaale li nga xam ne ñu ngi koy jooy ba tey ci réew mi te noppeeguñu nañ bàyyi di suul wax joo xam ne jotagut pour ñu suul ko loolu maa ngi koy fàttali Macky Sall ak ñu nekk ci ginnaaw ndax da gis réew mi dafay am benn mbir moo xam ne dafay xew ñu nekk di ci wax te wax ci dafa jaadu jëf si jaadu ñu fexe ba am luñ ko mëppee rek luñ ko muuree rek bàyyi ko mu sedd te loolu du yoon ndax tey dangay gis euh, quatorze milliards yi la yaakaar naa ci ci ci Covid bi boobu dañ ci nekk di wax war ko régler au que ñu régler ko ñu am benn coow boo xam ne dafa ñëw xëpp ci kawam. muy wàllu soog bi accident yi xewoon bi mu ñëwee rek loolu fay ñu bàyyi noonu mu sedd lëm lëmasal yi lañ war a bàyyee ci réew mi yi ñu war a rek régler ñu régler ko bi soog bi ci Kaffrine amee métti trop dama toog man di seetaan di tuur ay xiiwal wallaahi lazim ah yaay xale boobu noonu ñuy wax Moussa naka xam nga kii gaañoon chauffeur bis bi damaa toog di ko seetaan dama jooy man ba bëgg a dee. te xaw ko nii rek laa ko gisee si télé bi xoolal yërmande gi ma am ci moom rawatina nag kay fa mbokk mi nga xam ne ñoo ko gën a jege ah kon loolu du lu ñu war a lëm lëmasal rek si ñaari fan fàtte ko de dañ ko war a topp ñu ne déedéet waaye leneen ñëw këpp ci kawam gën a métti fan yi kenn déggatu ko fexe nañ ba am luñ mëpp ci kawam muy yëngal nañ dossier Ousmane Sonko mi nga xam ne nitu bayre la. naa duñ duggee foofu émission bi day gën a comme que gis ngeen fa mu anticipé xam ngeen ne rek te émission bi dara du ci yomb lépp mooy metti tegal foofu sa baaram sa loxo dinañ gën a yaatal bu baax a baax. acca gis ngeen fa mu nuyoo dinañ gën a yaatal waaye tey waxtaan ci xam waxtaan ci lu toll ci juróom-ñaari ponk ci diggante ñaan ak paj bi nga xam ne mu ngi ci def résultat yu màcc ayib waaye duñ fa jógee it am na mu gis ci président Ousmane Sonko bañ na ba tàmbali na gis ngeen fa mu tàmbale dinañ yaatal bu baax a baax tey li mu gis sëñ bi doy na war de daam fu mu bëgg ñu tàmbalee mu di kaaraange bi nga xam ne bu yéeme bi ngay def boobu ñàkk ko am de ñëw ci wóorut de. sëñ Cheikh li may wax xam naa ko bu baax waxewu ma xaal maa ngi ànd ak sama sago mhm. maa ngi bàyyi xel li may wax bu baax xam naa ñi may déglu xam naa ñi may siifu xam naa ñi ma bëgg xam naa ñi ma bañ bu baax danga nga wax bi. Mhm. ñëwaguma ci Ousmane Sonko moom lay tëjee sama émission mhm. waaye li may wax ni danaa ci taxaw ba mu leer naññi oh. parce que lu mu méttit la man Mansour Faye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu euh, euh, kii transport bi maa ngi wax Macky Sall bu ko mënee sensé mu sensé ko Mansour Faye biddiwam ak tabiyam méngoowut ak liñ ko dénk gisaguñ dara ci Sénégal déegi gisaguñ dara soog yi gisaguñ dara xam-xam laa lay wax tabiya Ousmane Sonko tabiya euh, Mansour Faye mhm. mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu transport bi oh. tabiya am suuf la turaabi yu la fekk nag mu ngi nekk ministre de euh, transport deret ak muy tuuru ci deret euh, ci dëkk bi. dinañ ko changé. buñ ko mënoon a changé buñ ko mënoon a changé ñu jox ko wàllu wàllu wàllu mbay mi wàllu mbay mi koom dana gën a yokk ci dëkk bi. si leneen doyal nañ nañ ko changé. ci loolu. président Macky Sall. maa ngi koy wax na gën a bàyyi bàyyiwaat xelam populam bu baax nit ñi sonn nañ ndaw ñi sonn nañ doomi réewam mi nekk ci Euh, mbëkk mi mhm. Maroc na ci bàyyi xel na fexe récupérer doomi réewam doomi réewam yaa ngi des si biir géej gi ñu ngi dee ci géej gi boo demee Maroc mhm. ay sénégalais ngay dajeet ñuy yelwaan ci yoon bi ci mbedd yi boo demee ci désert bi mhm. ñoom nga fay fekk ñu fay fanaan dangay gis ku dox ba daanu dee ngir xiif ngir mar li ko tax a génn mooy sëfoor si sëfoor si yi ngay gis apprenti yi nii ñu jàng ba yor seen di diplôme ci mécanicien yi ci ministre métallique yi ministre bois yi ñooñu rek ñooy génn di di di di dee ci àll bi di wuti ci àll bi li tax loolu dafa am luñ soxla te gisuñ ko seen réew mi te jàng nañ ba yor seen xam-xam est-ce que xam nga ne suñu réew mi ci ñaari mbir lañ gën a spécialisé noonu muy wàllu mbay ak wàllu métier dégg nga li ma wax bu baax moo tax état Sénégal tey mu ngi bëggee euh, Euh, politique côté bu nekk mu ngi duggee politique côté bu nekk waaye maa ngi koy woo ne ko bu fekkoon ne côté bii ma koy jaarale jaar na fa ndikoon lim bëgg yàlla dana ko yombal troisième mandat yi ñu nekk di coow ak yaa ngi dégg nit ñi génn gi mu génn ci xoli nit ñi mu bëgg lu mu ko récupérer ba lu nekk mu ngi ciy dugg wallahi yoon bi may wax ni yoon bu yomb la pour mu jaar si am lim bëgg muy wàllu transport bii nga xam ne tey accident yi bëri na soog yi bëri na li tax xale yaa ngi njëkkalante pour mën a jot seen wërsëg bu fekkoon ne dafa fexe ba wàccee ay biis yu bees tàq ci biir dëkk bi mm-hmm. yaa ngi dégg oh, oh. biis yu baax wàcce leen ci biir dëkk bi yoo xam ne moo leen di tegal boppam ay entreprise yoo xam ne mooy jël ay chauffeurs yi boppam mm-hmm. di leen fayal boppam ñuy daw ci mboolem kaso quatorze euh, raisons yi ci biir dëkk bi mm-hmm. ndikoon sëñ bi chauffeur yëpp danañ am liggéey ndikoon ñëpp ay am liggéey yaa ngi dégg foofu foofu laa ci yem yaa ngi dégg euh, kii yi mécaniciens yi menuisier bois yi nangam nang yooyu yëpp benn bu nekk mu ubbi ci entreprise xale yi am métier di liggéey ndi koon dëkk bi dana dox de wàllu mbay mi mu fexe ba taxawaay bi mu ci waroon a taxaw mu taxaw ko ndi koon dëkk bi dana dox ñëpp danañ ko bëgg troisième mandat bi du am benn problème man ànduma ak Macky Sall ànduma ak Sonko dëgg laa àndal kon loolu du ma ci yaatal ndax lii dëgg-dëgg conférence la boo xam ne xaju ci programme ci ci émission bi. ci kaaraange bi ma la laaj. kaaraange maa ngi wax ne. képp koo xam ne nii nit nga. képp koo xam ne nit nga. doomu aadama nga jamono jii. ku weex nga ku ñuul nga. koo mën a doon da war a wut kaaraange. ndax dañoo toll ci siècle bi nga xam ne. siècle bu doy waar la. sëñ Cheikh. est-ce que xam nga ne nit a ngi fii si gàmbi gi mm-hmm. gàmbi gii sa pegg. def fa ñaar fukki at jugee Sénégal gii mënut dugg si waat bi Sénégal est-ce que xam nga ne mystique ko fa téye. loolu doy na waar. Murtani gii. am na ku fa def vingt ans mënta retourné mystique moo ko fa téye rawatina nag yow mi nga xam ne da nga nekk ci biti. Mm-hmm. yaa ngi dégg nekk Europe wala yu demee noonu nekk fa ñaar fukki at di wut benn papier mm-hmm. mënoo say jot nga topp say avocat mm-hmm. di fay fay nga génne nga xaalis ba sonn mënoo fexe ba jot sa papier def nga fa vingt ans am nga papier waaye mënoo retourné. nga foog ne leneen la téye dara téyewul la lu dul misik est-ce que xam nga ne am na ay jaam yàlla yoo xam ne yegg nañ ci kañaan ak soxor foo xam ne buñ mënoon a génn àddina faatu bañ suul leen seen bàmmeel ñu jug liggéeyaat nit yàqal ko delluwaat seen biir bàmmeel tëdd danañ ko def am na ñoo xam ne seen kañaan ak seen soxor ak yéene doomu aadama yàqu yegg na foofu waaye nag terewul ñu ngi koy def ndax ñoom tëdduñ seen biir bàmmeel jug ñëw liggéey nit waaye nit ay tëdd ci biir bàmmeelam ñu jug am lu ñu jug euh, am luñ jël ci kooku pour yàq doomu aadama bàyyiwaat ko mu bi kun mystique bi nekk ci biir dëkk bi yaa ngi dégg rab yiy dox ci kaw tali yi rab yi dox ci biir euh, biir mbedd yi rab yi dox ci biir kër yi rab yiy dox ba ci sa biir néeg ak nitu guddi yi yooyu ku amut kaaraange naka def ba mucc naka ngay def ba mucc ma ne doomi jën xam nga lu ko jik hmm. mooy dëkk ci biir ndoxam waaw doomi ji eh, doomi doomi jën mhm. dëkk ci biir ndoxam rek moo ko jig kun nit ñi nañ delluwaat ci ñaan mhm. yàlla moo wax ci alquran ne qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aakum lan la leen seen borom di defee bu fekk loo nag li ngeen koy ñaan mhm. kun nit ki kenn la war a ñaan mooy yàlla boo mënul ñaan demal nga ñaan ci boo toogee nag ba gëmatuloo ko lépp lu la arrivé kenn tegul la ko yow yaako teg sa bopp ndax yaa waroon a ñag sa bopp balaa kenn deeg si yow ku bëgg a ñagu ku bëgg a xaaru ci côté yépp mystique am na fi yoo xam ne képp ku la jugal yàqute loolu mooy li war am aja yéen ñi ko soxla bëgg protection bu wér fexe leen ngeen jokkoo moom kooku mooy Cheikh Baye seetu askan wi ndax mu ngi ciy def résultat yu màcc ayib aja waaye dama ñëw ci ubbeeku ak bayre bu sa sàpp bi nga xam ne yaa koy def te kenn weranteetu ko ak ubbeeku ñaari mbir lay nga xam ne képp kuy doomu aadama war nga ko wut moo xam président la mhm. ndax tey yow mënoo jug ne da ngay dugg ci xoli jaam yàlla ne dañ la bëgg far force ah mhm. am na koo xam ne nii dafay génn si mbedd mi defalul nit ñi dara defalul nit ñi dara amalul nit ñi benn njëriñ mhm. mais da ngay gis nit ñi duñ am sago ci moom ah loolu lan moo ko waral mooy la yàlla defaloon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo may yonentu bi bayre moo ko may Ibrahim moo ko may Yuusufa Yuusufa ba yàlla di wax ci moom ci alquran ci làmmeñu jigéen ña fala falammaa raaynu akbarnahu wa qataxna aydiyahunna wa qulna haada lillahi ma haada basarun inna haada ila malakun karim du dara lu dul bayre bi nga xam ne yàlla def na ko si jëmmam taar bi yàlla def si jëmmam ba ku ko gis tàqali ko ak sagom kon koo xam ne danga nga bëgg a jiite peuple fa nga am bayre nit ñi bëgg la d'abord ba pare boo ne jaar leen fii ñu mën faa jaar nit ñi wax nañ ba sonn dara rek lewut li tax mooy ñi war a wax seen bayre ñoo manqué kun bayre bi dafa am solo waaw nitu peuple dafay am bayre mhm. yow mi nga xam ne da ngay liggéey nekk ci bërëb di liggéey mhm. da ngay xëy ba ngoon jot doo jaay cinq mille francs te sa place bu weer dee nga war a fay cent mille francs wala cent cinquante mille francs ndax ngay def ci ay pexe rek ngay mujjee moo tax nit ñi nañu wuti bayre mhm. nañu wuti bu ñu wutee ouverture mbir yi dana gën a yomb ndax mooy li ma la wax léegi rek xul maa yabo bikum rabbi law laa duwaakum mbir yépp ci àdduna ñaan koy mottali <laughs> wala man dama naan ñaan moo koy dimbale jërëjëf yaa xam nga nekk ci biir réew mi wala nga nekk bitim réew ci ponk bi mu bëgg a dugg nag loolu mën naa ne kàng la ci ponkal la ci ndax euh, wér gis bokk ci xaw ma ñu jot a jaar fii de mais ñu fi jaar xam nañ ci dara mu di seet bi nga xam ne bu yéeme bi ngay def ku bëgg ñu gis la daal gis bu leer fexeel nga jokkoo ak moom ndax seet moom mën na ko wala listaxaar mi ko saa su ne. sëñ bi man ñaan aw ma ci frontière aw ma frontière ci ñaan ci dara mm-hmm. amut boo xam ne jaamu yàlla dana ma ko sant man. nga fekk man ma feebul ci parce que lu tax damaa pare démb tey door a ñëw damaa pare démb tey door a ñëw boo déggee ku naan ci lii laa spécialisé ci wàllu ñaan lii laa spécialisé ci wàllu faj dafa fekk ne dafa maîtriser wul asraar ndax asraar bàyyiwul dara jamu la jamu sirru sirru nag muy asraar bu fekkee maîtriser nga ko ci xam-xam bu wér ci ilmu nujum ci ilmu tabaaya ilmu rawxaan ilmu xawaatim elmu xalawaat ba mu jeex ila axiri boo ko maîtriser amut soxla boo xam ne jaamu yàlla dana la ko wax mu tëla kun seet man képp koo xam ne nii da ngaa bañ ñu gis la doo ma sant seet gis yow sa avenir mooy lan gis ñi nekk sa kaw gis ñi nekk sa suuf gis ñi nga xam ne ñoo nekk sa kanam gis ñi nekk sa ginnaaw ndax nit ki buy dox ñeent yi moo ko wër moo tax yàlla wàcce ñeenti tabaay yi muy turaabi yu maawi yu naar yu hawaa yu dangay gis ne nit ki buy dox am na ñu nekk ci gan kanamam am na ñu nekk ci ginnaawam am na ñu nekk ci ndeyjooram am na ñu nekk ci góosam ñii say soppe lañ mm-hmm. ñooy jug pour fegal la lor ñii say noonu lañ ñooy jug pour yàqal la moo tax war nga di mm-hmm. seet lii moo nekk sa wërsëg sa kanam lii sa gannaaw mooy li nga xam ne mooy li la yàqal kon ku bëgg seetlu sa mbir mm-hmm. ku bëgg gis sa mbir ci côté yu mën a doon jokkool ak Cheikh Baye ñu tombal la ram li wax la lu leer nañ fukki bunt ak juróom-benn yoo xam ne tomb bu nekk du bokk ak moromam li muy wax wax la ay sarax yoo xam ne boo fa jaaree incha allahu taalaa kenn mënta tere ba li ngay yóotu doo si jot. kenn mata tere ba sa avenir du baax incha allah. jërëjëf ci xam-xam bi jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne kooku mooy Cheikh baay di seetu askan bi atia dañuy dox ba léegi yaatal njëkkanteek waxtu wi ci mbiram këyit jot nga fa dugg sànq waaye damay ñëw ñu yaatal ci bu baax a baax ci ñi nga xam ne dañ koy sàkku saa su am ci jafe kayit yor naa ci ay xeeti xam-xam yi nga xam ne ay secret yi nga xam ne yàgg naa di wax ne mm. man su fekkee ne neex na ma man ci ki may jëflanteel mm. duma la jox nga takk du ma la jox nga sangu du ma la jox nga li may liggéey sama kurus laa koy liggéey te billaahi wallaahi alazim bu ma la liggéeyalee wàllu kayit mm. force da nga am waaw force bu ma neexee sax lay jox dale loolu amul sikki sàkk kurus dañ cee am lijaaba boo xam ne ñu ngi ci sant yàlla bu baax su ma neexee ma jox la nga takk su ma neexee ma jox la nga sangu yoon yi ma ciy liggéey dafa bari waaye nag ñi nga xam ne nekk nañ ci biti di wut kayit kayit jafe lañ nañ gëm bu baax lañ leen di wax man awma soxla ci kenn awma soxla ci kenn mm-hmm. ku gëm li may wax baax na ñëwal ku gëmu toggal nga ro sa ruq nga ñaanal sa bopp incha allah ku am problème kayit ci biir réew mi la ci biti réew mi mm-hmm. kayit yu ñuy xëccoo sax wàllu kër yi am problème yeeg mm-hmm. parking yeeg yooyu yëpp incha allah boo dof dof loo sax ma notal la ki nga xam ne moom nga seqal wàllu kayit ba bu waxatee ci terrain bi dootu ko nettali ba waxatee sa oto dootu ko nettali yooyu yëpp mu fi waaw acca euh, kon euh, dégg ngeen yéen suñuy mbokki moodu moodu yi nga xam ne yéen a ngi ciy ñaan lu am jafe-jafe yi fexe leen ngeen jokkoo ak moom ndax du doon ku naqaree jot numéro yi ñu ngi doon affiche suufu barre d'écran bi yow contacté ko rek dina jëflanteeg sa xol <laughs> wax de see boo ñu ba ak yow noob noob lépp lu ma ci defut baaxut moo tax maa ngi si sant yàlla sénégalais yi xam nañ ma ci bu baax ay tubaab ak ay naar mhm. dañ may boole ak ñoom maa ngi ci sant yàlla bu baax parce que gis nga wàllu sëy dafa nekk li nga xam dañ ko war a ñage te sénégalais yi di ko foyee gis nga problème yi ngay gis si mbedd yi yëpp dara waral ko tey lu dul ci biir kër yi la jógee est ce que xam nga ne ñi nga xam ne ñoom ngay gis ci mbedd yi ñuy ne di saaga di def lu leen neex yaa ngi dégg amuñ benn xayaaw benn kers amatuñ ko problème bi ci biir néegi la jógee muy jabar joo xam ne dafa yab borom këram di dundeek moom nu ko neex ko nga foog ne mën naa jur lu baax du ko jur ba àddina tukki moo tax nit ñi na ñàllu ci seen sëy yi te doom ju baax ni ko jigéen bëggee noonu la ko góor bëggee kon bu ngeen bëggee doom yu baax na ngeen téye seen soxna ñu nangul leen déggal leen ba nga xam ne lépp loo bëgg yàlla na la ko yombalal ci moom ku bëgg nag sa jabar déggal la sa borom kër déggal la xale bu bëgg takk mu jafe ci parent bi la wala ci yaay ji wu papa ji nijaay ji bu mu mën a doon wala dafa génn si mbedd est-ce que xam nga ne sëy li koy yàq moo bari sëy mën ngaa waxtaan ak xale bu jigéen bi ba mu d'accord mu essayé si yaay yaay ji d'accord mu essayé si baay ji xale bi d'accord baay ji d'accord yaay ji d'accord nijaay ji d'accord mu génn si mbedd mi ñu yàqee ko ci mbedd mi moo tax léegi góor ñu bëri dañuy wax ne jabar dafa jafe léegi lii nag moo tax jabar jafe Saara Jóob ji moom xam naa ne jabar jafe woon na leen parce que dañoo lamb door am jabar. jërëjëf jërëjëf waaw kon baax na acca ñu yaatal beneen ci beneen ponk yaatal duggoot ci beneen ponk ñëw ci mbiram lii di xëccoo xëccoo nag duñ ko waxee si ni xel yi dina daj lu bëri du question ñi nga xam ne dañoo bëgg nguur waaye ñi nga xam ne dañoo xëccoo lu ci mel ni place dañ ci yaatal bu baax a baax ba ci ñi nga xam ne ñu ngi ci làmb. xëccoo comme mooy comme li ma la si wax rek bu dee wàllu kër la. xëccoo bi bari na ci biir réew mi li ma si jot ci ay cas yu may réglé am na benn secret boo xam ne bu ma ko liggéeyee ci bërëb bi bu dee pàkk bu ñuy xëccoo la kër bu ñuy xëccoo balaa koy suul borom bu ci waxatee dafay génn àddina am na am na xeet yi nga xam ne yu may liggéey la ba tey ci wàllu kër ci wàllu miraas yu demee noonu maa ngi ciy toj toj yoo xam ne ci wàllu bërëb yi nga xam ne tey ku yor place di liggéey nga jàkkaarloo place boo xam ne daf la bëgg daaneel yaa ngi dégg mu bëgg la daaneel nga bëgg ko fa jëlee man dama koy liggéey amu boobu nga bëgg ko fa jëlee am na lu may liggéey loo xam ne ci reenu salaan laa koy liggéey su ma ko liggéeyee ba pare jox la ko nga sànni ko ci buntu place ba borom dafay xëy rek yenu ay bagaasam waxuma ne xel mi lay dem de waaye dafay yenu ay bagaasam wuti feneen fu mu tuxu ji gàm bi toj naa fa ba sonn ci côté boobu kon loolu ñu ngi si sant yàlla am na si yeneen yoon yoo xam ne dañ ko siy liggéey kuy xëccoo nguur la kuy xëccoo lu mu mën a doon boo déggante man incha allah li ngay yóotu yow da nga ci jot mu neex mun mu naqari. acca euh, ku ci bëgg lii di gàllaaju tul bu wér te rek fexeel nga ñëw ci cheikh bi sëñ bi. tul bu yéeme bi ngay liggéey nit ñi di koy waxtaane fu nekk. waaw alhamdulilah loolu ñu ngi si sant yàlla. tul ñu bëri dañuy wax ne tul dafa jafe ndax est ce que xam nga ne ñu bëri wuti nañ gàllaaj boo gisee réew mi nga gis euh, homme affaire yi seen problème bari ci biir dëkk bi coow li bëri ci biir dëkk bi mooy dañoo wuti mystique dañoo ngemb ci si àll ba ba jàpp ne seen ngemb dëgër na ba ñuy dugg ci biir dakaar mu yàqu parce que li ko li tax mu yàqu mooy jam ñaajo gi dafa am nuñ fay dugalee te sëriñ yu bëri xamuñ ko. nekk foofu la dañ jëm bëri mbër yu bëri ngay gis ñu génn dem ba Mali xam naa ci mbër yu bëri nga xam ne dañuy dem ba Mali waaye bu ñuy ñëw bu ñuy génn jam ñaajo rek seen musique yëpp toj na yàqu loolu nag man maa ci am xam-xam yu wér bu wóor boo xam ne jugeel foo mën a jugee ci àddina bi mhm. ñëwal fekk ma Dakar ma liggéeyal la musique yoo xam ne da nga romb jam ñaajo te du am benn problème jugeel ndakaaru jógeel foo mën a jógee fekk ma Saalum li nga xam ne mooy sama baax fekk ma fa ma liggéeyal la mystique yoo xam ne nga dugg ndakaaru te dara du xew feteel nag walla paaka jaas yi dama lay jox nga SCV bam normal nga fay ma xaalis nga door a dem yaa ngi dëgg ay millions yu bari nag laa koy liggéey <laughs> leer nañ kuy nëbbatu ne maa ngi nii kon xam ngeen gis ngeen fa mu daaneel ci ñu bëgg loolu di gàllaaj boobu noonu acca euh, li ñu amoon ci waxtu jeex na dañuy jeexal nag waaye laata ma ñëw ci actualité ku ko gis xam ne ne xamme ngeen ko bu baax daan nañ waxtaan ci Ousmane Sonko début jamono mënoon ñenn ñi sax ñu ngi ko doon waxee mara marabu président Ousmane Sonko daana fi wax ba biñ ko fi njëkkee woolu xaw koo denc lu tollook benn fan am na sarax yu mu joxe woon am ndax am na politicien bu mag boo xam ne da nga daan jëflanteeg moom ba génnee saraxu glace euh, président Ousmane Sonko lan nga gis ci moom ndax jamono bi léegi fi mu ne nii tàng na ci moom de ay ngi xalaat tëj ko de. waaw Ousmane moom dama ko yërëm dama ko yërëm trop waaw Ousmane dama ko yërëm de. sëñ bi ma nga yërëm parce que lu tax instant bii ñu toll dafa sës si miir bi waaw dëgg nga communication am. moom la xaw ma dem bu dëgg nga communication bi. bi mu def noonu. Mm-hmm. Ousmane dem na ba sës si miir bi man nag dama toog kalaat ma ne waaw Ousmane ndax marabu mi yi koy ñaanal sëriñam yi koy ñaanal ñi may dégg ñu tuddee leen marabu di Ousmane Sonko mhm. ndax ñoom dañoo mënta fay coow wala. loolu moom laa toog xalaat yi mu nekk sama problème. Mhm. bu fekkee dañ ko amut nañ jël sama numéro bi ñu woo ma aw soxla ci usmaan Sonko nag. léegi fay aw ma soxla ci usmaan Sonko aw ma soxla ci Macky Sall. Mhm. waaye damaa toog xalaat ci rek ma ne xanaa mënuñu fay coow. waaye ma toog kalaat ma ne. ndekete doomi mbottu dëkk doomi mbott ndoxu ko jik loo bëgg a wax de mooy lan mooy politicien li ko jik kay mooy coow ku ndeke Ousmane coow moo ko jik waaye nag gisal naa ko problème. ah problème boobu lan la si. 2023 euh, bii hmm. wallaahi li ma ci yàlla wan hmm. lépp bu ma ko waxee dafay ëpp. waaye Ousmane fii ji fin mars 2023 bii hmm. na ko ay mbokkam jugal. du ma ne amul mystique de réew yoo xam nañ ne am na mystique waaye na jug bu baax ndax gis naa ndëggi sarax ci moom. waaye jamono ñu toll moom. ndë ndëggi sarax yi gis naa ko ci ndëggi sarax yi gis naa ko ci moom ci 2023 bi loolu yëpp ci 2023 bi la waaw lépp lu xew rek nañ xam ne Cheikh Baye Dia. moom mën naa waxoon na ko. est-ce que xam nga ne 2023 bii ay leader yu bari yoo xam ne ba ci wàllu politique bi mm-hmm. gisal naa leen ay problème waaw. comme lan noonu. Macky Sall nag moom maa ngi koy wax ne ko bàyyi xel. ñu nekk ci ginnaawam ñu nekk ci ginnaawam ñu si bëri danañ danañ danañ démissionné parce que ñu si bëri wóolootuñ seen bopp waaw ñu si bëri wóolootuñ seen bopp ala kulli xaalin daal maa ngi ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci néegi sëy yi di sëy nañ fexe ñàkk seen sëy yi ndax 2023 bi sëy yu bëri dana ci tas. nga ne doo dégganteeg waa Pastef comme ñu ci bokk ci président Ousmane Sonko cooli nga fay ko mu jeex tàkk yëpp. waa loolu moom biti la fanaan ndax ku ne xam na ma ci wàllu. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. di wax président na xoolaat réewam bu baax. xam li ko yàlla dénk lan la doole ji ko yàlla jox lan la est-ce que xam nga ne sëñ Cheikh milliard du caaxaan. damay dégg ñu naan Sénégal réewu pauvre la. yaa ngi dégg loolu lay dégg ñuy wax. te chaque jour yaa ngi dégg milliards yi nga xam ne dañ koy dugal ñu koy pasar pasare. milliard mooy lan mooy li nga xam ne mën nga cee dépense chaque jour. ñaar fukki junne par bés téeméeri at ak lu teg kun pauvre gi ci réew mi sonn gi xiif gi mar gi problème yi nit ñi nekkee président la neex waaye bu ko neexoon léegi tey réew mi ñoom nekk ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw sog yi nga xam ne am na Kaffrine ak bi am Saint-Louis Mansour fay maa ngi koy jaale bu baax mbokkam yi nga xam ne ñoo wàññeeku ci sog boobu ndax ay mbokkam lañ ci eh, raison de kii la. nu mu tudd Saint-Louis bi la kon ay mbokkam lañ maa ngi ko koy jaale bu baax di ko jaale soxnaam ak famille yëpp waaye moom Mansour Faye maa ngi ñeewante ci moom ndax li ma gis ci moom dafa bari trop te li ma yàlla xamal ci moom dafa bari parce que dama concentré wu xool ay dossier bu baax. parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk gis nga bu dara xewee mbir mu kenn ku nekk war nga jël sa responsabilité li la yàlla manloo ci sa domaine li la yàlla xamloo ci wala nga def ci sa kem kattan kon xool naa ci ay dossier bu baax mais moom ci boppam maa ngi koy xaw a yërëm maa ngi koy wax ne ko am na jànq séeréel boo xam ne mu ngi woon këram yàlla wan na ma loolu ci mbiram benn jànq séeréel boo xam ne daf doon liggéey këram weekend bi nga xam ne daf koy paase këram gi nekk ndar moog soxnaam bu ñëwaan kooku moo leen di toggal benn jànq séeréel la boo xam ne mu ngi woon këram doomam bu jigéen mu ci kër ga moom Mansour Faye foofu ci këram googu jànq boobu génnoon na këram bu fekkee ne mën na ko wari pour récupérer waat ko na koo récupérer ndax kooku toj talam la ci këram tojtal la ci këram googu kun na ko wari bu ko mënee wari mu delloosiwaat ko ci këram te moom ci boppam na fexe jotanteeg man dana am sarax yoo xam ne danaa ko ko génneloo ci quatorze raisons yi nga xam ne moo nekk ci Sénégal yépp mu génnee sarax yooyu incha allahu yàlla mën na ko dimbale.